promotion sama combat le 12 bi muy entre Tapha ak euh, Bombardier la laa demoon Lyon jóge fa dem Paris def benn tour bu ndaw pour de nekk sama promotion bi Souleymane ziar naa la loolu la woon quoi. foo toll ci préparation bi événement boobu amateurs yi ñu ngi koy xaar. waa léegi ndax ndax revanche la. waa revanche bu mag la xale yi di bëri nii fekke wu ñu woon revanche bi donc occasion la tey pour xale yi mën ko fekkee moo tax la set la am benn euh, face to bi nga ne 20 lutteurs yëpp ñoom ñooy ñëw am si la njaaxum di bëre ak tonnerre si la wóos jàmbaar lépp dama dajale dix grands combats. wóos jàmbaar da ciy bëre. wóos jàmbaar da ciy bëre ak Maguette Seck ak Maguette sek moom mooy Boy Niang 2 euh, bu bu Balla école de lutte waaw am na benn xale bi nga xam ne actuellement mooy lion bu raay moo nekk Mbour tey stade Caroline Faye benn mbër moo koy feesal mooy lion lion bu raay jour boobu aussi da ciy bëri ak benn xale bu ñu naan ëmma eh, muy nekk journée bi nga xam ne fête lay doon eh, ñu si woo ñëpp ñu ñëw billets yi dañ koy yombal Eh, jour boobu 2000 francs lay jaayee billet. lu tax non lu tax ma def lu mel noonu. c'est que aspect xaalis bi amu ci importance li ci am importance mooy ñu jaay suñu culture te comme dama bëgg woote eh, ñu def la lute autrement c'est-à-dire que ni tey yow mi toog sa kër bëgg seetaan face à ak sa njaboot bu ëllëgee di nga ci dégg ay njariñ yi nga xam ne dina tax nga sawar sa doom nga ne ko seetaanal moo tax eh, lundi Bombardier la bàyyi muy def benn face aux amateurs noonu laa tuddee émission bi. télévision yi dañ ciy déplacé wu fekk ko Mbour mu def ko da en direct moom rek moo fay nekk Tapha du fa nekk moom ñu laaj ko mu wax fu mu jaar bu ko defee nit ñi dinañ xam bu mercredi Tapha def la même chose en direct dina permettre tey violence du am euh, lu taxoon ñu si nañ euh, yenn. mu mel ni da ngaa bëgg a voilà dama ne non man waxoon naa leen ko newoon naa leen su ma ñëwee c'est pour innover déjà Tapha Tine ñëpp xam nañu euh, cultivateur la fekk naa ko Réfane def ak moom documentaire. Bombardier ñëpp xam nañ kat la fekk naa ko Mbour def moom émission bi nga xam ne yëpp documentaire la te yooyu yëpp si jouru lamb ji day daw ci écran géant. looloo yor Sénégal mbay meek napp gi. mbay mi ak napp gi donc ñun bu ñu bëggee euh, ma dama ci ànd ak sama partenaire bi nga xam ne Eric Favre lañ koy wax comme moom nasaraan la dina permettre tey tubaab yi bu ñuy gis culture Sénégal euh, li nit ñi di wax ay violence ak nangam gisuñu ko si gis leneen tubaab soxlawul tey nga sol jiin soxla ay ay veste ak ay nangam dafa bëgg ñun. xale yi bu ñuy ñëw sol culture Sénégal ñëw daf comme seen mag ñi lañ daan def takk ay sër ñëw bàkku mu neex am na ka nga xam ne tey bàkk moo ko indi ci làmb am na nga xam ne way moo ko indi ci làmb am na nga xam ne bëre moo ko indi ci làmb pour nga am loolu yëpp nag il faut ñun ñu organiser waat suñu bopp ba kenn du ñu askanale yenn yi voilà. tey boo amoon message booy booy booy booy lancé à travers amateurs yi ak fans club yi surtout yi nga xamante ne bii ñoom. bu fi violence amee ci ñoom la lañ leen ëpp leen koy gisee ci ñoom. xam nga tey bu may def euh, état bi laay jëkk lancé message mooy tey làmb ju toll nii xale yi tëgg euh, xoola champion yi fi daje ni mel. tey fii yëpp dafa waroon fees ak euh, sponsor yi dañu waroon ñëw te sponsor yi ni ñuy ñëwee du xaalis bu ñuy jox état bi di jox promoteur yi mais day dem si société yi mu ne société bu nekk soo dugalee sa loxo si sport en général tey dinaa la exonérer yenn taxes yi bu ko defee tey man su daan dama daan fay 100 millions par an état bi léegi ne naa fay 50 parce que léegi dama dugal sama loxo ci sport état bi dërëmam dootul dugg ci sport. léegi ce ko veut dire que sociétés yi ñooy daw di ñëw ñi bëgg làmb dem ci làmb ñu bëgg handball dem ci am handball ñu bëgg football dem ci football noonu lay demee u dëkk noonu lay doxee. Eh, te loolu li koy def nag mooy ministre des di woote di toog ak borom xam-xam yi ñi nekk ci làmb wala ñi nekk ci sport en général ku si nekk am na li nga xam ne xëy na bu ñu toogee bu ñu waxtaanee suñu biir. dinañ si génne njëriñ njëriñ boobu nag moom mooy permettre xale yi ba violence bi ñu bëgg a xeex ñu dem ñu dindi ko nu ñu nu ñu neexee niñ koy dindee mooy làmb soo amatee tey xale bi dootul tal loolu parce que xam na ni tey gagne-pain la yow da ngay fekk mbër mi këram ni ko xoolal sa njëriñ moo nekk ci lii yow yaay toog di wax man lépp laa bàyyi làmb rek laa topp ma ne ko loolu erreur la nit da nga war am sa métier ba pare am soo ko wax waxi làmb donc loolu tey buñ ko gënee di sensibiliser xale yi di ci waxtaan ak ñoom dina dem ba mbër mi tey ku bëgg a yàq yëfam moom ci boppam mooy ñëw ne la doo ko fa yàqee yi dinañ suivre dinañ dem ba dinañ comprendre ñoom ñëpp te loolu yëpp waxtaan la laaj ñun acteuru lamb yi ñoo war a toog mais yàkkamte wuñu gis benn affaire bu xaw a ñaaw ñu daw wane ko te dafa am li nga xam da nga koy nëbb dafa am li nga xam ne loolu tamit ñun presse bi am nañ ci part de responsabilité. xam nga presse bi am na ñi nga xam ne sa genre gi am na lu ñu xam li nga xam ne du ñu yàq tey bu ñu gisee li nga xam ne bu ñu ko wanee ku bëggoon ñëw ci làmb ji day daw yow doo ko wane parce que xam nga mais dafa am ay gan ngeen am ñu bees ñi nga xam ne buzz la ñuy wut te am na buzz yi nga xam ne day yàq te loolu yow da nga ni damaa ñëw ci làmb pour liggéey ci am ci dara mais am na image yi soo ko xasee ba wane mais yaa ngi yàq sa métier yaa nga toog ci benn banc ba pare di ko siyee te xamuloo ko te loolu yëpp aussi presse bi il faut ngeen toog seen biir xool ñi nga xam ne leer na la kii lu muy def baaxul ngeen toog yee ko waxtaan nag moom mu dellusiwaat delloo si xelam xam ne li ñuy def ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk daal voilà. kon daal combat Tapha Tine ak ki nga xamante ne bii mooy euh, Bombardier na nañoo xaar événement bu mag. non événement bu rëy lay doon ce jour ba euh, culture français la ñu bëgg a boole ak culture ak culture Sénégal loolu yëpp lañu ñu bëgg àndandoo ñun ñëpp boole ko te bu boobaa ku ñëw fii ñëpp di ngeen kontaan bu soob yàlla. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf sama mbër mooy bëre booy mbuur moom moo. xaaral ma amul problème